yi wax na ci wàllu fitna gi waaye tamit lu ñuy nemeeku ci réseaux sociaux yi ba ci sax élection locale yu ñu dëgmal réew mi quotidien def tamit ab xayma ci l'accident yi nga xamante ne moo xew ci yoonu Touba bi ñu wàññee ci téeméer ak ñeent fukk ak ñaari accident juróomi téeméer ak juróom ñi nga xamante ne ñoo ci loru juróom-ñett yi nag ñoo ca jote ñàkk seen bakkan métit gi yemul rek ci l'accident yi ndax réew mi quotidien yokk na ci ni ren ji tamit ay jafe-jafe la ñu nemeeku dëgg ci wàllub ndox mi foofee ca Touba ba tax taalibe yi maroon nañu lool beneen coonam ndox bi mooy ndaxu taw bi nga xamante ne kon moo fay lëmbee fitna gi élection locale ak réseaux sociaux yi moo tax tamit L'As Quotidien naka réew mi quotidien gis ni kon xutba bu am solo la Sëriñ Muntaxa yëkkati ni ki démb xutba tamit la ko Walf Quotidien daa di duppee gannaaw Grand Magal 2021 bi xalif général des mourides àdduna jëmale ko ci way politique yi yéenekaay bi dikkaat na ci xew-xewu màggal gi ak yëngu-yëngu yi nga xamante ne moom lañ fa doon amal wax tamit na ci ñi doon jaay ay garab yi nga xamante ne kon baaxul yéene kaay groupe Walfadjri bi tamit dikkaat ak ñun ci tente yi nga xamante ne kii di Antoine Félix jom moo ko moom te gisuñu ko loolu yëpp muy ay jàngat yi nga xamante ne mën nañ koo defee ci màggal Touba ren ji màggal bi l'observateur di xam ne ni kon ci biir cérémonie officielle bi kii di xalif général kullu murid ay digle waaye tamit jàngal la doon def ñi nga xamante ne ñooy askan wi rawatina way politique yi muy élection yi xamante ne wax na ko ci jëmale ko ci élection locale yi ñu dëgmal fitne gi mi waaye tamit lu ñu nemmeeku ci réseau sociaux yi l'observateur dikkaat ak ñun ci bilan l'accident yi nga xamante ne kon moom la ñu nemmeeku ci yoonub Touba bi enquête moom dafa gis ni la almuntaxa daa di joxe ci lu jëm ci élection locale yi naka noone wàllub mbënn mi ak li nga xamante ne mooy fitna gi kilifa gi di ci wote ab dal waaye tamit xalif bi ci biir enquête yéene kay jarale ko ci porte parole bi di Serigne Bass Abdoul Khadre mu ngay sàkko ci njiitu réew mi Macky Sall mu gën a baral loxoom ci lu jëm ci projet yi nga xamante ne moom la daa di engagé foofee rawatina dëgg li nga xamante ne moo waral coono askan wi di wàllu mbënn mi élection locale yi ci le Sud Quotidien dellu si tamit mu duppee ko sax vote bi nga xamante ne sunu naataango yi dañoo jàpp ni xalif bi def na ko ci lu jëm ci wàllu dal ngir waajal yooyu le tànneef ngir ñi jiite gox-goxaan yi jëfin gu rafet ak kaddu yi nga xamante ne kaddu kilifa dëgg la moo tax Dakar Times di méngale xalif général des Mourides al Muntaxa mi ab modèle la maanaam royukaay ci umma islamique bi wërngal këpp ñi nekkul modèle kay mooy ñu doon yëngatu ci wàllub trafic passeport diplomatique yi nga xamante ne moo lëmbee réew mi réew mi quotidien di ñu xamal ni lii di Kédoursay daf ci fas yéene ubbi ab l'enquête ci coowal faux passeport yooyee libération dikkaat ak ñun ci fanweer ak benn ci ay faux mariage yi nga xamante ne daal dinañ koy amal lépp ci yombalal ñenn ñi ngir ñu am passeport diplomatique yooyee yéenekaay bi dikkaat ak ñun ci PV yi nga xamante ne ñoo tukkee ci enquête bi mu mel ni gën naa suuxat bu baax a baax député yi di Mamadou Sall ak ñi nga xamante ne ñoom ñooy voyageurs sénégale yi ndax jamono ji ñoom la ñu tëggat ci bépp aéroport ci àdduna Walf Quotidien jàppe ni sax diplomatie bu Sénégal ci boppam moo daal di deltu ginnaw bu baax a baax état bu Sénégal fas yéenewul deltu ginnaaw ci lu jëm ci suuxu bateau Joola ndax maître Sidiki Kaba mi nga xamante ne moo nekkoon ca Sikicoor teewal fa gouvernement bi keroog ba ñuy fàttali fukki at ak juróom-ñeent yi nga xamante ne bateau bi suux na ma ngay xam ne ni kon daañu fexe ba daal di situer responsabilité yi le quotidien yéene kaay dikkaat ci digle yi nga xamante ne jëriñ ji def na ko ci lu jëm ci génne bato bi ci ndox mi mu nekk waaye tamit li Sénégal di waa waajal muy ab loi ngir daal di samp ab journée du souvenir laj bi suñu géndee jigéen ñi def ci afrobasket bi doon xew ca Yaoundé l'observateur xëy na ci tey def ab gëstu bu yaa jox kaddu gi ay technicien waaye tamit ñi nekkoon ay jamono ci équipe boobee ñoom ñépp ku ci nekk di ci indi jàngat li am ba am Sud Quotidien mag ñuy xamal ni suñu gayndey moom laalew ñu sax ak podium bi ci afrobasket bu ren ji ca jamono joje Stade Quotidien di dikkaat ak ñun ci jaloore ji nga xamante ne suñu gayndey def nañ ko ci wàllub football ñeel ñi nga xamante ne ñoo amee nopp yi neexul édition bu njëkk bu afrobasket bi équipe bu Sénégal ci wàll wi moo ko daal di jël ci kanamu Mali ana kuy jël ndam li diggante Paris Saint-Germain ak Manchester City tey jii lay leer ci jongante ñaareelu bëccëg Ligue des champion muy ñaari équipe yi nga xamante ne neexoon nañu lool ci effectif waaye stade quotidien dañu xamal ni Paris moom revanche la ci war a ut ndax City moo ko éliminé woon ni ki daaw Bombardier fas yéene ut revanche am ak Eumeu Sène moo tax nelawatul ba yendoor njiital